ànd ak ci jataayu xam-xam bii ñuy def li ci leeral tomb bu am solo muy alxidma xidma di yoon wi Sëriñ Tuubaa indi yeesale ko diine bañ ba tudd moom al abdullahi wa xadimu rasulillahi di wax ne darajati kawniya abdillahi xadima abdihim ni abdillahi daraja ji ma yàlla defal tey ji ji ma ji gën a kawe mooy doon jaamub yàlla doon liggéeykatu yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon yoon wi sëñ Tuubaa jaar pour am ngërëmu yàlla eh, yoon wi muy indi ngir yeesal diine yoon wi muy wi muy xàllal ñun taalibe yi ñu war cee jaar mooy liggéeyal jaamu yàlla ak liggéeyal yonante bi alayhi salaatu wasalaam wala liggéeyal mbindeef yépp buñ ne xidma nag mooy liggéey boo xam ne nit ki da koy def ngir jariñ jullit ñépp xaaru ci njariñ lu teew luy dellu si ci moom xidma boobu nag nga xam ne moo tax ba mu jógee wax ne dama jaayante ubaayiul yowma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa damay jaayanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa ci liggéeyal ko di ñaan yàlla mu kattanal ma ba ma mata matal jaayante googu kon moom engagement bi mu jëloon liggéey bi mu doon liggéey di ko liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi di ko liggéeyal lislaam di ko liggéeyal xeetu doomu aadama yépp ngir teg leen ci yoon ngir xettali leen tey ak ëllëg loolu lépp da koo dugal ci xidma Euh, xidma nag boo ko bëggee xam mooy xoolal Sëriñ Tuubaa par rapport euh, ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu doon defal yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy da ko doon liggéeyal ci jëmmam di ko liggéeyal te li mu ko liggéeyal ci jëmm ji sëriñ bi wax na ne am na ci loo xamee ne ku dul yàlla xamu ko ku dul yàlla ak yonent bi xamut la ma ko liggéeyal ndax liggéeyu baatin la liggéey boobu nag euh, nee na Eh, yàlla rek ko mën a xam am na ci liggéey boo xam ne bu zahir la nag nee na daanaa ko liggéeyal ci sama xalima di ko tagg di ko way di def ci moom di julli ci moom lépp ci liggéey bi la am na liggéey bu mu liggéey tamit ci eh, xeetam bi mooy ummatu rasulillahi sallallahu alayhi wa ci liggéey boo xam tamit da ko liggéey ci diine ji mooy yeesal gi mu yeesal diine ji eh, jàngalewaat lislaam bu sell gannaaw bi nga xamee ne dem na ba yoon wi gaa yu baax yi lëndëmoon mu ñëw yeesalaat ko mu leer loolu lépp ci liggéey bi mu liggéeyee yonte bi aleyhi salaatu wasalaam ji la kon xidma boobu nga xam ne moom lim def ci la ko jaarale moom it digal bépp taalibe bu bëgg a jariñu muy def li nga xam ne mooy xidma mooy liggéeyal lislaam liggéeyal jullit ñi liggéey loo xam ne day amal njariñ ku nekk lépp looy def muy lu baax nga yéene ca jariñ sàkku ci ngërëmul yàlla loola day dugg ci day dugg ci xitba mu mu doon loo xam ne nag dafa am solo lool ci yoon wi ndax sëriñ bi li mu wax ci kuy kuy ma nee na yowmal xiyaam ñi nga xam ne dañuy xitmaal jullit yi buñ demee ba bis pénc ba metti lool njàqare ñépp nekk ci njàqare nee na sëriñ Tuubaa wax na ci masaalikul jinaan nee na ña daan liggéeyal jullit ñi yàlla daleen di wax woo ne leen yéen day am ku woote ne yéen ñi doon liggéeyal jullit ñi yéen dugg leen àjjana ca kenn du leen xisaab kon loolu day wane solos xidma sëriñ bi ñaanal ñi nga xam ne ñoo koy xidmaal lépp loo xam ne fajuk aajo la sëriñ bi ñaanal na ko ku koy xidmaal waaye bokk na ci kon liggéey bi mu liggéey yàlla ci mooy ñaan yooyu mu doon def yàlla te gis ngeen ko ci xaside yu baree bari ngir yàlla aar ummatu nabi alayhi salaatu wasalaam waaye yoon wi mu doon rëddal xeetu yoon saa salaam ci wan leen yoonu njàngale mu baax muñ xamee seen borom mu jaamoo seen borom loolu lépp ci anam gu mu doon liggéey yoon saa salaam kon liggéey boobu nag nga xamee ne moom la Sëñ Tuubaa sóobu woon di ci jaar di ci liggéey yonent bi aleyhi salaatu salaam bépp taalibe bu wootewoo woo Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa da ibbil aw yoon ne la ñaar ñoo fi nekk mbindeef moo fi nekk ak yàlla moo fi nekk ak mbindeef yi yàlla lii la war sa diggante ak ñoom mooy jaamu ko loolu sa relation la sa diggante ak sa borom jaamu ko rafetal jaam bi mbindeef moo gis nag liggéeyal yàlla ca moom ci jariñ ko fexe lu lu ko jariñ fexe loo ko xettilee fexe loo ko yokke fexe loo ko indil njariñ loolu mooy xidma ñu xam ne xidma nag dafa doon lu am solo ndax lépp loo gis tey yoonu murid taxawal ko réaliser ko da nga dafa dugg ci cadre xidma boobu nga xam ne buñ gisee jumaay njaareem xidma boobu moo ko jur ndax murit yi ñoo laxasaayu liggéey ba taxawal ko ca bañ koy taxawal booba ci crise bu metti la àdduna nekk ndax ku ne xam na ne 1918 ñi ngi jóge ñi ngi ñëw ci guerre mondiale bu njëkk bi liggéey boobu xidma boobu ci lañ taxawale jumaay Tuubaa ci lañ ñoddee raay bi indi ko ba jógeel ko njaareem indi ko Touba ci lañ kon tabaxe jumaay Touba ca booba ku ne xam na ne moom it lu metti la nga ñu ngi jóge ci deuxième guerre mondiale nekk ci ay jafe-jafe waaye murit yi ci seen pas-pas ak ci ci principe bu xitma ci lañ laxasaayoo di bay di jox Cheikh Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou ba min jumaa ji àgg 1963 xitma boobu ci lañ yokke jumaa ji lépp loo xam ne réalisation ci lañ taxawale xelkom ci ndigalul Cheikh Saalihu xidma boobu moo indi tey masaalikul jinaan ñu lépp kon loo xam ne liggéeyub lislaam la bu jóg lépp lu ca nit def moo xam xam-xam la ca def moo xam doole la ca def moo xam alal la ca def loola day dugg ci xidma boo demee ci euh, matlabu shifaa yi mi ngi ciy wax wa axrina ya banaa bil xidma lil muslimina abadan wa rahma yow yàlla maa ngi lay ñaan eh, nga def sama yitte nga xiir ñu ci liggéeyal jullit yi yërëm leen ak di leen liggéeyal kon dafa mel ne taalibe bi dafa war a jàppe ne ku mu gis rek da ci xool ne mooy ak leer gu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu war leen a jariñ war a wut ngërëmam war leen a lépp lu koy jariñ bu ko defee ne kon sëñ bi foofu ibbil nañu yoon wu yaatu woo xamee ne euh, taalibi bu ko defee amut jotug di lor mbindeef ndax koo xamee ne leeru jëmm joo gis leeru yonent yonent bi aleyhi salaatu wa salaam da lay xeeñ da nga bi moo tax gis nañ ci yoonu murit daayira yi ba ci li ci yàggut bu ci mujjut euh, rek mooy euh, daayira yi ni ñuy formé woo yooyu yëpp ay anam la yu ñuy jéem a indee xidma ci société bi maanaam di xeeñtu ngërëmul yàlla ci mbindeef yi nooy fexe ba dindi fi ñàkk ñàkk nooy fexe ba dindi fi e, problème ak jafe-jafe yi société bi dund te dindi googu boobaa jaamu yàlla ci yow lay doon ci yow ndax boo demee ci téere Sëñ Tuubaa bu tudd Masaalikul Jinaan am na bunt bu mu fa bu yaatu bu mu fa indi wane ne sa mbokkum jullit soxla bëgg war ci dara nga jàppale ko ba mu war ca loolu jaamu yàlla gënu koo kawe aw dàllam dagg nga defaral ko ko euh, jaamu yàlla gënu koo kawe wax yu bunt yu baree bare bari yoo xam ne ku ci jaar am ngërëmu yàlla ndax xidma kenn ku nekk la nga man te muy lu am njariñ da nga cee xidma forme xidma yi dafa bari ndax xam-xam dinañ ci xidma alal dinañ ci xidma euh, doole dinañ ci xidma lu xidma boobu it moo taxawal tey woote bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha woote na ko muy daara ju réy ji nga xam ne eh, ñi ngi koy nattale ci milliards yu baree baree baree bari mu taxawal ko taxawal ko lislaam mboolem murit yi takku ci buntu xidma kon ci lañ taxawal liggéey boo am solo boobu kon xidma eh, lu lislaam soxla la lu réew mi soxla la lu ñëpp lu jullit yëpp soxla la bunt la boo xam ne lépp luñ bëgg a taxawal mën nañ ko taxawal ca muy loo xam ne lépp lu ci nit def danga cey cay am ngërëmul yàlla ndax ngërëmul yàlla rek lañuy wut ci ma muy bunt boo xam ne bunt bu am solo la bu yaatu la boo xam ne lu ne mën nañ ko cee jaarale am ci texeeg tey ak texeeg ëllëg ndeke sëñ Tuubaa niñ doon fooge yàlla dafa sori lool ba kenn mënu koo am ngërëmam ci lu dul da war a dem ca jàkka ja di leextikaaf di di di di woor sori nit ñi mooy tax nga am ngërëm yàlla sëñ Tuubaa déedéet nee déedéet li yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne yàlla damaa defal ujuhilal masjidu li ardu li masjidan wa tahura suuf sépp doon jàkk ci man fépp yàlla nekk fa fu ne nga mën faa amee ngërëmul yàlla sëñ Tuubaa dafa li yàlla ba ndekee sa dëkkandoo bi nga dëkkal boo ko jàppalee liggéeyal ci yàlla rek yàllaa nga foofa yonent bi am na addis bu muy wax ne jaam bi dafa yàlla dafa wax jaam bi ne ko damaa tawat te seet ma jaam bi ne ko kawteef yow borom bi nooy taxawete mu ne ko sama jaam bi sa dëkkandoo bi dafa tawat te ñëw seet ko kon noonu nga xamee ne sëñ Tuubaa noonu loolu hadis bi wax loolu lañu ñu sëñ Tuubaa bëgg a jàngale ci xidma ne ndekee buntu yàlla du caagi ne ci jàkka yi dong la nekk waaye mi ngi ci mbindeef yépp mbindeef moo xool xool ci sëriñ Tuubaa ñu def moo xool xool ci leeru yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ndeke man nga faa amee ngërëm ci jàppale ko ci indi ko ay njariñ euh, loolu jàpp naa ne Sëñ Tuubaa ibbil nañu bunt boo xamee ne bu ñu ko exploité dëgg-dëgg waxuma la defar Touba comme ni ko Touba ci kanam ak yeneen euh, daayira yi defee waaye yaakaar naa ne Afrique waaye adduna bépp indil nañu modèle boo xamee ne développement la danañ defar sunu bopp waaye dinañuy bëggante yërëmante te exploitation du am guerre du am mbañeel du am ndax ku ne da ciy xool yàlla. kon loolu mooy xidma mu doon loo xam ne sëriñ bi moom ci buntu xidma la dugal ab liggéeyam woote ci xidma xidma boobu it gis nañ lim fi taxawal mu doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la lu mat a nos la ba nga xam ne lépp luñ bëgg a def dinañ ko ca mën a def. ñu bàyyi xel ne ki nga xam ne tey dafa am alal la gën ci moom mooy xidma ci alal waaye ñu bàyyi xel ki nga xam ne dafa am expertise ci domaine bu mu mën a doon mu xidma ca domaine boobu loolu moo indi tey bi Seex Muhammad Muntaxa wootee ñi nga xam ne dañoo am alal dañoo indi seen alal ñi nga xam ne dañoo am xam-xam dañoo indi seen xam-xam ñi nga xam ne dañoo am soñ seen doole indi seen doole ba lii taxaw kon ëllëg it lépp loo xam ne yoon wi soxla na ko lislaam soxla na ko mën nañ koo jaarale ci buntu xidma ba sottal loola. muy bunt boo xamee ne yaakaar naa ne jar naa exploité bu baax a baax alhamdulilah at yu mujj yëpp borom xam-xam yi bind nañ ci lu baree baree bari e, tàmbale ko jariñ jàpp nañ ne e, mbind yooyu war naa gën a tas nit ñi gën cee jariñoo ñu bind ci ay ay ay thèse e, ba mu doon modèle boo xamee ne du rek Sénégal ñun dañuy jëggaane ci tubaab yi wala dañuy jëggaane ci naar yi. ay anam yu ñu mën a defaree suñu diine wala suñ defaree suñu àddina waaye ndekkete Serigne Touba ci liggéey bi mu doon liggéeyal yàlla indil nañ ci bunt boo xamee ne mën na cee am amee yàlla gaa waaye mën nañ cee defaree suñu réew mën nañ cee defaree suñu société mën nañ cee defaree Afrique gépp kon daal euh, ñu bàyyi ko xel bu baax a baax jàpp ne euh, ndimbal la ci ñun kon yàlla ñu yàlla fayal sëriñ bi yàggal fii sëriñ Muntaxa bu baax te wéral ko naa sëmb bu bëgg ci liggéeyal yàlla yëpp yàlla jàppale ko ci euh, ba mu àgg yàlla sàmm njaboot gi yàlla defal ñu màggal gu ñu nangu ànd ak xéewal yu bare bari euh, nawet bi barkeel ci barke Sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu salaatun lasi fi lisaanin wa fi safar